Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. les produits métiers les produits métiers di émission espéciale pour jagleel corps de métier yi ngeen ko doon am ci L24 TV dikkat na ànd ak doole ci yeneen anam yu gën a yaatu bàyyiwul benn corps de métier maçon menuisier carreleur tailleur chauffeur docteur professeur vendeur boulanger bàyyiwul kenn foo leen mën nekk ci réewum Sénégal les produits métiers dana leen fa fekk waxtaan ak yéen ci seen i jaar-jaar seen i compétence seenu liggéey seeni création seeni jafe-jafe ak itam seeni xalaat ci liggéey bi fi mu toll ci réew mi wala sax ci àdduna bi les produits métiers ngeen man koo am ci l TV ñaari yoon weer wu nekk ñu fas yéene ci ànd ak suñuy sponsor officiel lu ci mel ni Belel entreprise nekk ci dëkk bu tedd bii di Touba jéngu ci wàllum agence de voyage agence immobilière ak assurance ñaa frère waa kër Serigne Massamba di jaay pièces détachées auto toute marque ñoom itam ñu ngi nekk fii ci Touba. li ci gën a neex nag mooy képp ku ñu sponsorisé ñetti weer yu nekk dana la jagleel émission spéciale boo xam ne nii yaa ko moom les produits métiers ci L24 yi képp ku ci bëgg lu la leer nga bëgg ñu dalal la wala sax nga bëgg a ñëw ànd ak ñun ci sponsor bi man ngaa woote ci 77 659 97 19 wala 76 846 44 19 L24 TV au service de la société L24 TV ngir njariñu askan wi Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler.